détail yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na taw yi nga xam ne moo wàcc démb ci Ndakaaru tax na autopont bi nekk Kër Masar moom tim dafa fees dell ko ndox waaye oto pon bi nekk diwaanu Yoff moom tim dafa tëmb ci ndox mi pont de l'émergence bi nekk Patte d'Oie foofee am na ci genn wàllu goo xam ne dafa daal di dagg ndox mooy fa jaar yéenekaay gi di enquête nee na taw yi yi tax na bëri na ay quartiers yoo xam ne dafa fees dell ko ndox maanaam dafa inondé yéenekaay gi di Les Échos nee armeel yu yi démb dafa fees dell ko ndox waaye hôpital Philippe Senghor dafa fees dell ko ndox pont bi nekk Yoff dafa fees dell kom ndox VDN bi dafa fees dell kom ndox Kër Masar démb dafa fees dell kom ndox fi nga xam ne mooy Rufisque démb dafa fees dell kom ndox fi nga xam ne mooy Guédiawaye démb dafa fees dell kom ndox fi nga xam ne mooy Cambérène démb dafa fees dell kom ndox fi nga xam ne mooy Parcelles démb dafa fees dell kom ndox yéen kay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas wax ji mu gudd gàtt ko gënaat Ndakaaru Njaay jël job démb moo tëmb ci ndox mi yéen kay gi de la témoin ñu xëy fekk fa Aminata Touré bi ñu ko laajee ci lu jëm ci wàllum inondation yi nee na phénomène mondial la yéen kay gi di Direct News nee na inondation yi nga xam ne moom la ñuy gis ci réew ak campagne bii nga xam ne moom la ñu nekk en pleine campagne inondation yi mel nii loolee du baax ci benn bokk yaakaar yéen kaay gi ne na Omar Gueye mi nga xam ne moo fi digg woon ay digge wax ne ñoom jël nañu seen matukaay inondation da am la nga xam ne moom la waxoon jamono ji mën nañoo wax ne dara du ci dëgg lépp tàbbi na géej ay yéen kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Kër Massar ñenn si ñooma nee nañu 2012 ba léegi ñoo ngi ñuy wax ne ay milliards la ñu dugal ngir nag saafara inondation yi waaye ba léegi amul benn njariñ xaalis boobee nag fan la dugg moom la gars yi di laaj ñi nga xam ne ñoo nekk Grand Yoff ñoom nee nañu at mu jot ñu wax leen ci lu jëm ci wàllum saafara inondation yi waaye nag gis nañu ne du am benn saafara yéen kaay gi de la Tribune nee na taw yi nga xam ne moom la ñu gis ni ki démb ci Sénégal mën nañoo wax ne asamaan si dafa voté contre benn bokk yaakaar ci élection législative yi askan wi nga xam ne ñoo yeewoon Dakar ak ci Kër Massar ak ci Thiès ni ki démb sonn ci ndox mi yéen kaay gi nee na état bi nag ci boppam moo nekk ci caaxaana ndax nguurug Sénégal neewoon nañu sept cent soixante-six yu ñu dugal ci inondation yi ba léegi gars yi gisuñu dara état bi li jaaxal gars yi mooy nguur gi nee na nañu dugal nañu ay milliards ci inondation yi te gis nañu ne bu tawee askan wi nekk si jafe xaalis boobu maanaam fan la ñu ko dugal yéene kaay gi ñu xëy fekk fa bugaan gi dane nee na inondation yi ñi nga xam ne ñoom la ñu ko dénk sa Kër Masara ñooñu nag dañu leen war a atte yóbbu leen haute trahison yéene kaay gi di grand place xëy di ñu xibaar naan ñu Kër Masara lu jege fanweeri milliards yoo xam ne nee na nañu dugal nañ ko ci ndox mi waaye nag ba léegi gis nañu ne waa Kër Masara ñoo ngi wéy di ami jafe-jafe yéenekaay gi di Le Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci élection député yi nga xam ne moom la ñu dëgmal a campagne bi nga xam ne moom la coalition Yewwi Askan Wi nekkee journal bi nee na Ousmane Sonko ñi mu àndal démb ñoo ngi won ca diwaanu Tamba waaye nag lu jëm ci wàllum dund gu cher moom la ñu doon campagne Ousmane Sonko nee na coalition Yewwi Askan Wi bu amee majorité la ñuy njëkk a def mooy wàññi dund gi nga xam ne dafa cher ba maara détaale Sonko ne ñoom ñu amee majorité ceeb bi dinañu ko wàññi suukar si dinañu ko wàññi diwlin gi danañu ko wàññi Ousmane Sonko nee na Macky Sall ak ñi mu àndal fàtte Tamba yéenekaay gi de Libération ñu xëy fekk fa Aminata Touré muy tontu Ousmane Sonko Aminata Touré nee na Casamance bu ko Macky Sall bëggutoon du fi investir lu toll ci quatre cent cinquante milliards yéenekaay gi di 24 heures nee na coalition ànd sàmm jikko yee ñoom nag du ñu voteel Bokk Yaakaar ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax ñoom nee nañu dañoo yóbbu woon ab proposition de loi député Benno Bokk Yaakaar yi daal di koy gàntal yéenekaay gi di xëy fekk fa Barthélémy Dias moom nag nee na képp koo xam ne voteel nga Benno Bokk Yaakaar yow yaa ngi dooleel góor jigéen tamit yaa ngi bëgg Macky Sall def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal yéen i bi nee na lu jëm ci wàllum transhumance ge ma ngi mel ni tulleeg màlle waaye nag ci département bu Mbacké gis nañu ne Abdoulaye Niane ak Cheikh Bara Dolly ñoom nee nañu benn bokk yaakaar la ñu jàppale Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne ma ngi woon ci yeewi moom tim bàyyi na yeewee ndax ñi mën nañoo tax benn bokk yaakaar gagné département bu Mbacké journal bi nee na député Cheikh Bara Dolly mi nga xam ne PDS la nekkoon te ñu investir ko ci coalition wàllu Sénégal moo bàyyi PDS ginnaaw bi ko Macky Sall recevoir moom nee na benn bokk yaakaar faral ci élection yi yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu Idrissa Goudiaby mi faatu woon sa diwaanu Ziguinchor te procureur waxoon ne Idrissa Goudiaby moomee balu fetal rëyu ko ay mbokkam loolee gëmuñu ko woon moo tax dañoo defoon beneen autopsie ñetti médecin yoo xam ne ñu moom seen bopp lañ maanaam ñetti médecin yu indépendant ñoom nag bi ñu defee autopsie bi gis nañ ne Idrissa Goudiaby moomee balu fetal moo ko rey Ousmane Sonko am na démb ci diwaanu Jëppal dafa am benn dawalkatu cag-cag boo xam ne moo doon xuloo akub taximaana ba ñu xuloo ñoom ñaar ba songante dawalkatu cag-cag bi moo ko dóoru taximaan bi séddgu yoo yéen kaay gi di réew mi ko di jee moom tim xëy diñu mbir mu garaaw a garaaw mu doy war ab étudiante bu tudd Céline Gomis boo xam ne ay samba boye ñoo ko tegoon loxo fi nga xam ne moo tolloo ko cité Colodel daal di koy séquestré waaye nag dañu ko daal di violé lu toll si ñetti fan yoo xam ne maanaam torturé nañ ko séquestré ko nañ ko journal bi nee na ñett ñooñu nga xam ne ñoo def ñaawteef bu jigéen bi bi ñu koy